Maguette euh, Wade maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk euh, coordonnateur national bu euh, mouvement alternatif pour la relève citoyenne bu Anta Babacar Ngom fi ñu toll nii naka la candidature bi de candidature bi di ak seen candidate bi di Anta Babacar Ngom. maa ngi remercier bu di la xamal ni. ñu ngi sant yàlla nag bu baax a baax ndax fu nekk ñu daal ñu affaire yi doxee daal ñun dañ cee bége bége ba nga xam ne fu ñu jaar nit ñaa ngi génn di ñu tàccu di ñu xaar fi mu nekk nii sax tey lañu war a jeexal suñu tournée ñibbi si waat Dakar incha allah rabbi ndax ñi ngi woon suivre la région du fleuve def nañ euh, euh, Richard Toll def Podor def maatam te tey boo demee Matam euh, dem Podor Anta Babacar dafa nangu titre foncier bi si si si loxo Benno te Anta dafa taxaw mu nekk mbégte bu métti bu am solo nag suñu ñu jógee fa ñëw Diourbel ñëw Mbacké demb ñu ngi Thiès ak barki démb def fa mitin bu rëy rëy rëy ñëw place de France ñëpp nabb ah kon ñu ngi sant yàlla nag bu baax ndax parti boo xam ne mouvement boo xam ne. biñ ko ubbeeg léegi juróom benn weer yi ma defa ko euh, yàlla def ñu motal suñu parrainage motal déposé a ah, yaakaar naa nag sant yàlla moom war nañu hmm. waaye la muy wane rek mooy sénégalais yi dañoo sonn euh, ci li ne fi euh, ndax Anta Babacar du politicien classique capitaine d'industrie la kon bu demee bu dugg ci langue politique bi bu amoon lu ko ak la ko neex ak Sénégal dawee na mu war dawee du ko waaye nag dëkk bi dem ba toll foo xam ne nag képp kuy doomu dëkk bëgg dëkk bi amoo feneen fu dul Sénégal di nga taxaw jóg défendre ko te loolu moo ko ci dugal ndax moom buggoon ko neexoon mu toog ndax am na tur boo pare ndax Tapam c'est un monument si suuf lu jógee ba yegg si ci kaw wane ne le patriotisme économique mën naa nekk wane na ne mën ngaa bañ a jógee sa dëkk liggéey ko ba toll fi mu toll loolu la def si ci ant si ci environnement liggéey la judd liggéey la xam. su ko neexoon ne mu toog bitim réew waaye dafa ñibbisi parce que xam na ne am na solution mën naa defar Sénégal ndaxte bokk nañ ci ñi nga xam ne dañu ngi laaj dëkk bi ñun mën na nañoo taxaw ne li mooy suñu bilan te mosuñ ñoo jox Sénégal loolu day Anta mën naa yëkkati loxoom wax ko ndax ku créé plus de sept mille emplois ah jaakaar naa ne buñ la joxee ta étatique nga xam ne moo ëpp doole levier entreprise ah da nga da eh, coono beeg lii am daal yaakaar nañ ne mën naa dañee si moom. Mhm. kon motal ngeen parrainage déposé ngeen seen candidature. motal nañ déposé ngeen trente yi. trente millions yi mhm. déposé nañ ko bañ jox ñu suñu attestation di motal nañ parrainage am nañ lu ëpp daal trois cent mille parrainage euh, yàlla suturaal nañu waaye loolu ni nga koy gisee mooy. Mhm. nga ñëw nekk ku bees wootee dëgg ndax ñun suñu bàkk mooy dégg-dëgg. duñu ay politiciens classiques dañuy wax li mën a nekk ak ni ñu ko bugg a defee ñu ne nag dañuy dans la démarche dañuy ute ñëpp ndax nit mënoo koo faj te xamoo feebaram feebaram moo la koy wax nga mën koo faj te léeg-léeg sax ñoom feebar bi ñu lay wax dañ lay jox tamit solution looloo tax ñun noonu lañ doxee jublu si ñoom def parenage citoyen ndax ñun dañoo jóg ne dañuy changer andi rupture andi andi relève bi ñu jógee eh, dégg nga Kolda bañ fa demee. dugg sa jàkka ja di ziare sëriñ imam ba ñu sànni ñu ay grenade pare parrainage citoyen la ñuy def te li ñu yoon teg yëpp on était avec en parfaite harmonie avec l'esprit de la loi électorale ñu jógee foofu dem maatam mu xumb ba jaaxal leen ndaxte ñoom dañ ñëwoon foofu ñoo ko moom ñu ñëw wan leen nangu nañ ko si ñoom léegi antal nangu na Fuuta dem nañ ba sa solal ko mbubu Penda Sarr ñaw la nga Fuuta yëpp génn ànd ak moom Podor Matam jógee ko ñëw Thiès kon yàlla la ñuy gërëm ndaxte bañ mëtalee parrainage yàgg na ñu ngi taxaw nag léegi ñun si massification lañ tomb romb nañ affaire yi ñun fi mu nekk massification la ñuy wax ak militants yi ñu jàpp ñu war ñoo voté foofu lañ toll. Mhm. léegi euh, yéen seen mouvement bi dafay topp système bi nga xam ne moo fi nekk di système mu euh, ñoom président Macky Sall wala dafa nekk anti système comme rek ñi nga li nga xam ne moom la Ousmane Sonko doon woote. waa xam nga boo xoolee de mille neuf cent soixante à nos jours euh, façon doxalin rek moo fi nekk te benn façon doxalin boobu li bi fi nekk loo lu mu jur. ñi fi nekkoon mille neuf cent soixante ñooy dem jox seen doom seen doom buñ paree jox seen sët mu mel ni cent personne daal ñoom moom Sénégal ñoo koy dawal ñooy koy xalaatal ñoom rek ñooy am xam-xam ñoom rek ñooy am alal loolu dañ ne day dagg waaye nag loolu pour mu nag dañuy changer système politique bi bu ñu joxe Sénégal président bi moom dafay toog na le législatif bi toog na le justice bi muy le pouvoir judiciaire dañuy am doole ba niroog bi nekk États-Unis nga xam ne Amérique dañoo jël seen cour suprême jël neuf juges nommé leen en vie seen njëriñ dund duñu ragal paate duñu ragal demb le droit rek la ñuy lii moo tax président Amérique su ne gauche procureur ne ko du ma ko def droite ngay jaar dara du ko ci fekk waaye fii ban procureur moo ñemee wax président wax ne demal gauche mu ne lay dem parce que l' exécutif dañ ko jox doole boobu te loolu nag boo xoolee histoire Sénégal li ko andi mooy Senghor profité ci benn situation jàppanteeg Mamadou Dia jaay ko doole profité ci benn situation créer un pouvoir présidentiel fort et autoritaire muy parti état uni ba Abdou Diouf bi mu fi nekkee réflexion yooyu dañ ko daan looloo ñu topp nag ba léegi dañul mm. Sénégal buñ ko bëggee defar e jàpp naa ne Anta li mu wax loolu mooy dëgg il faut ñu réformer système politique bi ba les l'exécutif xam cërëm le pouvoir judiciaire am cërëm le législatif am cërëm waaw ba nga xam ne daal lii di am assemblée pouvoir mécanique la di jëlal décision ak kan te li ngeen leen di jëlal décision neexu leen loolu yëpp dina leen ñun nag on va parler de souveraineté économique on va parler sa mbokk ma la gënal du xam nga dëkk boo xam ne tey nekk fi chinois wala nekk fi turc moo mm-hmm. si ngay gën a amee cër talaanga naan coca cola te nga nekk biir Sénégal loolu du teggin di yoon waaw suñ capitaine d'industrie yëpp dañ leen a écarté jox lépp waa bitim réew loolu fuñ ko teg dëkk boobu dox dem na ba ci banque yi suñ jigéen yeeg suñ doom yeeg ñëpp di dem ci Sénégal ban banque la marocains yi fi nekk nigériens yi mauritaniens yi téye suñu économie mais mënta dox mënta dox. léegi ñu gis ni euh, Maguette Wade sénégalais yi pareeguñ pour am njiitu réew boo xam ni euh, jigéen lay nekk tey jii lan mooy défi yi pour ñu mën a dépassé peut-être euh, état d'esprit boobu. loolu question la boo xam ne boo ma ko posé woon en mille neuf cent quatre ma ne la loolu mu ngi si bopp Sénégalais waaye tey nag xam nga àdduna dafay dox. Mhm. Euh, di dox ba euh, li lañ doon wax naan le monde est village planétaire. Mhm. le Sénégal est un petit village dans ce village planétaire. tey àdduna bi euh, dafa am benn cycle boo xam ne du Sénégal rek du Afrique mais àdduna bi la moo tax nga gis ce cycle de contestation bi wane ne ndaw ñi ñëw ëpp doole actuellement si àdduna bi. te ndaw yi ñu koo jàng na xelam ubbeeku na xelam yeewu na li ñu gëm mooy tey ñoom jigéen mën naa jiite góor mën naa jiite te tey boo xoolee adduna bi wax ma Sénégal rek de yi jigéen ñi ñooy jël paie xale yu góor yaa ngi administration jigéen ñaa nga sa kanam góor ñaa nga sa gannaaw tey Sénégal dem nañ ba am général bu jigéen am nañ ministre jigéen am nañ premier ministre adduna bi ay président yu jigéen day am kon tey foofu la adduna bi toll te je pense que ni loolu comme conflit boobu tey Sénégalais yi romb nañ ko te jàpp nañ ne tey ñun nga xam ne dañuy jiital diine si li ñuy def diine nangoo nañu jigéen mën naa taxaw si kanam kon loolu nekkul problème. Euh, est-ce que euh, Maguette jàpp nga ni euh, conditions yi daje na pour élection deux mille vingt quatre nekk élection yoo xam ne daal dina leer si bopp ñëpp mu nekk élection yu transparente waaw xam nga élection nag. Euh, muy Afrique muy Amérique bi nga gis barki Demba Ndiaye dem bay am impartation seen système électoral. li koy andi ñaare mooy euh, la démocratie et état ay être civilisé ñoo koy def mais tant que ki ñu jox bagage yi mu war a yemale ñëpp moom jàpp ne dafa am ku mu war a faral comme li faral di am dans les pays africains loolu day sooxeel démocratie ndaxte. Euh, bu ñu demee ba tey ñu ngi dañ dañu dem élection fichier électoral parti yi ku seq mënuñ see am accès ki si am accès mooy kiy organiser élection yi te kiy organiser élection yi moom daa far mais élection yooyu xel mën na see tey waaye jàpp naa ne lañ liggéey sa quatre-vingt-seize ba léegi si système électoral bi fii bi ñu yore ah imperfection mën na am waaye à soixante-dix pour cent ah dëgg la wax loolu moom loolu laa jàpp man te loolu laa gën waaye nag war nañ ko gën a améliorer war nañu ut une personne indépendante doomu réew mi bëri na ñoo xam ne muy pouvoir muy opposition gëm nañ leen si seen intégrité morale seen pas-pas boo jëlee exemple Ablaye Wade andi na fi général Lamine Cissé mu organiser ay élection Ablaye Wade gagné Macky Sall mais na jël une personne indépendante ku ñëpp mu taxaw diriger ku gañe gañe loolu élection. Euh, laaj bu mujj di affaire Ousmane Sonko parce que actualité bi la euh, ba léegi mënul jot ci ay fiche parrainage même bu fekkente ni euh, Ziguinchor jox nañ ko dëgg Dakar encore joxaat ko euh, dëgg ñu gis ni avocat ak euh, mandataire ba léegi euh, mënuñu jot ci seen fiche de de parrainage naka gisee mbir moomu lay mel ni Ousmane Sonko fi ñu toll nii daal il est hors course bu ñu toppee ci logique bi nga xamante ne avocat wu état yi foofu la ñu bëgg a wolof yi dañuy wax ñu ne cin bu naree neex bu baaxee xeeñ euh, dès le début de ces difficultés avec la justice j'avais dit que ne Ousmane nii euh, euh, dafa mel ni ñi mu ko seqal dañoo bëgg a def ba du dem élection xam nga nag champ politique boo ci nekkee di doxee noo xam ne ñi ngi ko séqal dañoo jàpp ne waroo dem élection bëgguñ nga dem élection ndax ki fi nekk comme li gars yi wax ñeneen dafa ragal wujj euh, yow yaay xool sa toogin xool sa dox ngay doxee pour mën see génn waaye daal li ma jàpp mooy daal justice daal bu jëlee décision ni Ousmane dañ ko war a delloo ci biir nañ ko delloowaat ci biir loolu warul war waruñ ci sax di discuter dafa ruslu c'est un ñu ne justice décidé na ne Ousmane nañ ko réintégré ñu yéexee ko ku nekk di lakk li dafa da dem ba jàpp nit ñi euh, fi Sénégal toll si métit nit ñi xiif mar rafle koo gis nag daw na daw a daw ba niratul nit xooluñ loolu nekk si ay championnat judiciaire Ousmane Macky mais nit ñi sol nañ nit ñi doyal nañ nañ bàyyi dëkk bi nokki nañ bàyyi dëkk bi dund Sénégal kenn moomu ko kenn waru fi tànnal kenn Sénégal dafa war a am jàmm Sénégal warul dund violence Sénégal dañ ko war a delloo li moom ay doomam gis ci seen bopp ku feebar faju ni dootul xiif ku bëgg a jàng jàng nga foog ne lii am ni ci université bi yoon la tëj ay université fu nit ñi war a jàngee xam-xam war a yore ëllëg dëkk bi war a yore dëkk àdduna bi xoolal tey sur le plan international doomu Sénégal yi ni ñuy wàññeekoo Gabon yaa ngay ñëw Burkina ba yaa ngay ñëw ñu ñu nekk mel ni suñu système bi dafa am problème te effectivement le système éducatif Sénégal dafa am ay problème il faut ñu toog gëstu ko xool ko université kenn du ko ci dëkk dañ leen war a bàyyi ñu jàngi loolu mooy yoon. voilà mais mais ubbi ay làmb ñun ñu toll ci liggéey nekk ci toona bu métti au lieu ñu xelal nit ñu jàngal nit ñuy liggéey mais foof foof foof foof ba kañ. modéra modéra école de danse yi doon ubbi jeex na léegi école de lii dañ ko war a arrêté nañ jëm ci liggéey nañ ñu yar ci liggéey Sénégal trois cent soixante cinq jours foofu. meeting fecc bal non dëkk bu doxul dañuy toog liggéey bàyyi caaxaan. merci beaucoup Maguette euh, Wade ñu ngi lay. remercier bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci euh, beaucoup. may fàttali ni Maguette Wade yow yaay coordonnateur bu mouvement euh, alternatif pour la relève citoyenne bu Anta Babacar Ngom merci beaucoup merci jërëjëf merci. jërëjëf merci jërëjëf